l'ancien président Laurent Gbagbo si la dugg awul si euh, wàccul si pavion euh, spécial bi mu contourner ko dem jël cortège bi euh, dem fi nga xamante ne mooy quartier général FPI mooy quartier général parti politique boobu di Front populaire ivoirien euh, mi ngi si yoon bi ñàkkul ne si kanam tuuti dina egsi si quartier général bi bu egsee nag dina def ab discours discours boobu la ñuy xaar euh, pour maanaam euh, wax li nga xamante ne kii di Laurent Gbagbo moom lay dénkoon ñi nga xamante ne ñoo bari lool wante Birama nekkul rek Abidjan dëkk bi yëpp gox goxaan yëpp euh, nit yi dañu génn pour xaar seen ancien président boobu di Laurent Gbagbo si kanam tuuti bu jëlee euh, kàddu pour euh, wax ak ñi nga xamante ne ñooy partisan moom ñàkku ne daañu si dellu si ñu jëli Cheikh Tidiane Laurent Gbagbo dellu si nag ginnaaw ay lu toll fukki at ak lu teg mu ngi ko def ci biti coow doxoon seen digg ak njiitu réew ma am ñu fa jot a faatu ñoo ñoo ngi xayma ci fu ci ñetti junni ak lu teg loole ndax du sulliwaat góom bi wala boog dañuy togg waxtaan waxtaanu biir nekk xool naka la ñuy àndaate ngir defar seen réew Côte d'Ivoire ah li ñu mën yaakaar de mooy xanaa ñoom dinañu mën waxtaan ci seen biir pour defaraat seen réew ndax euh, ndax affaire u xeexoog yooyu amul amul benn njëriñ si réew mi daf leen di dafay delloo ginnaaw rek donc euh, lu ñu mën xalaat daal mooy mooy xanaa bu nekkee ne li ñu gis mooy mel na ne président Ouattara moom mu ngi lâché du les maanaam nangu yenn affaires yi nangu bag Gbagbo ñibbisi euh, affecté ko pavillon présidentiel may ko mu jaar ci benn itinéraire dem ci dem ci siège xëy na aussi bu baax boo defee noonu Henri Konan Bédié def noonu xëy ñoom ñu mën waxtaan ba juboo si dara mais lu gën a important daal mooy foog naa ñoom ñëpp dañu war xalaat ne Côte d'Ivoire moo leen mag Côte d'Ivoire moo leen ëpp et Côte d'Ivoire rek moo important. jërëjëf Cheikh Tidiane Ndiaye jërëjëf Baye Omar Gueye di ngeen ci dellu siwaat ci nu mu gën a yaato bu ñu amaatee la nga xamante ne moo fay daal am ay développement foofee ca diwaanu Côte d'Ivoire ca booba jamono yi itam àndandoo Laurent boo yu nekk foofee ca Guinée ñoom itam daal di nañ um, Euh, màggal la nga xamante ne moom mooy dellu suy seen njiit jàpp ne nag loole euh, kenn du leen ko nettali ba tax rek ñu jàpp ne fi mu ne nii te la ñu gën a taxaw ngir daal di fexe euh, daal di joxaat kile di gëddëm seen njiit di Laurent Gbagbo teewlu ngeen ci suñu ndaw la fa di wuur yi Bari ci noonu itam jàngat li nga xamante ne kii la di euh, njiitalu Laurent Gbagbo ni mu daal di dellu see foofee ca Côte d'Ivoire euh, jàngalekat bi la di professeur Pape Ogo Seck jàpp ne nag loolee dina tax rek xel mun a dalandi ak it daal di fexe lépp la nga xamante ne moom mooy ay waxtaan yuy demal réew ma ci kanam ñu daal di ko fa gën a taxawee niki tey ji la ko daal di xamle ginnaaw bu muy jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye professeur Pape Ogo Seck ñu teewlu ko. waaw Gbagbo ni du ñu nekk ci contexte boo xam ni euh, contexte de pacification la ndax euh, malgré que duñ ko condamné woon bon bàyyi nañ ko loolu day wane ni que euh, li ñu bëgg daal mooy jàmm am ci ci réew Côte d'Ivoire donc le per que ñu bàyyi ko dina indi jàmm aussi ak yeneen waaye nag du Euh, ñu xalaat ni que Laurent boo moom homme politique la euh, su ñëwee tamit euh, soo moytuwul même su fekkee ni di dalal jàmm dina indi aussi ay contradiction politique yoo xam ni ëllëg mun na indi li ñuy wax ay tension politique ndax xelam dina nekk tamit ci dem ci waat beneen mandat wala yooyu waaw lu léegi nag lu jëm ci wàllu réconciliation bi jubóo gi ñuy sàkk ci Côte d'Ivoire ndax ñëw Laurent Gbagbo dina ko yombal waaw Laurent Gbagbo mën na ko yombal ci début bi waaye nag suñu demee ba ci biir euh, ay ambition mun a gën feeñ ndax pour l'instant waxaguñu gisaguñu muy wax ay ambition pour demaat ci nguur gi ak yooyu mais su ñu toogee ba gis ni que mi ngi nii mi ngi bëgg dem ci ay all élection di préparer aussi ay candidature yooyu boobaa nag si lay tension politique di mu ñëw maanaam su fekkee ni dafay ñëw bëgg dina teg mbagg kii di Alassane Ouattara euh, bu boobaa dina mën indi ay ay tension politique Eh, fu mu nekk nii mën nañu gis ni que daal euh, mën na indi jàmm ci ci réew mi ci benn fànn ndax aussi am na loo xam ni Laurent Gbagbo moom lay représenté ci ci wàllu Côte ah, ñu jégalu ba léegi mbirum technique lay ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci ma jambal Diagne mi nga xamante ne daal nañ ko tekk juróom-benn weeru kaso mu war a tëdd ñetti weer yi teg ci alamaan lu toll ci juróomi téeméeri euh, junni ci suñu koppar ak juróomi million ya nga xamante ne ndampaay la koy daal di jox ginnaaw bi ko daal di ci tool yi ñu jàpp ne nag dafa yàq der kii la di Souleymane Teliko nekk njiital UMS moom nag Madiambal Madiambal Diagne fi mu ne nii fas yéene naa daal di euh, maanaam àndul ci atte googee ba tax rek dina yóbbuwaat yëf yi fu mbaxana daal di doone benn ñu teewlu kenn ci ay wokkam di maître Baboucar Cissé ak El Hadj Malick Ndiaye. ñun décision bi man personnellement décision bi daf ma daf ma bett parce que c'est ma diffamation amu fi te amoon na ay exception yoo xam ne dañ ko soulever woon loo xam ne ne ñoom en fait loi bi respecté wuñu ko c'est-à-dire la forme d'abord avant d'aller au fond la forme respecté wuñu ko donc dañu war a annuler procédure bi ñoom ñu reprendre mais comme tribunal mooy dogal tribunal nee na euh, euh, exception yi daf ko daf ko écarté léegi nag mu déclaré Madiambal coupable diffamation condamné ko trois mois ferme ak cinq millions de dommages intérêts ñun nag dañuy def appel décision bi te dinañu taxaw pour que en appel au moins décision bi ñu teggi ko parce que simplement diffamation amu fi benn rapport de l'Union africaine la rapport bi c'est clair ñoom jot nañ xaalis boo xam ne waruñu ko woon jot dañ ko war delloo commencé woon nañ ko delloo moom mi sax mi ngi dese woon am mu ngi mu ngi dese woon un million et quelque yoo xam ne daf ko waroon remboursé donc ana diffamation waaw ndax Madiambal moom dafay dem prison mbala. Madiambal du dem prison ci dossier bi kooku moom mën naa la du dem prison ci dossier bi parce que dossier bi moom nous on yaakaar nañu bu ñu demee appel plaidé waat dossier bi ci yeneen juge yoo xam ne ñu gën a expérience ñu ko njëkkee ate ñooñu peut-être que dinañ dañu dañu revoir décision. li jëm ci kopp nañ ci xeex. li jëm ci kopp yi nga xam ne nag euh, euh, Souleymane Téliko laajoon na ko. loolu aussi 5 millions demande parce que moom 500 millions la laajoon 500 millions. ñoom dañu yaakaar ne moom boo ñëwee tribunal rek 500 millions ay 1 milliard da nga yaakaar ne fii moom loterie la. da ñëw rek lonage la nga battre rek moom empoché 500 millions. tribunal 5 millions la ko jox juróomi def am am na procédure yoo xam ne loi bi na ko procédure ko utiliser ndeyu mbili gi di Madiambal Diagne jàpp ne nag dogal googee ruusee ca tribunal nekkut la nga xamante ne moom moo ko daal di bett ndaxte nag foroon na ci ay wéyu béy ne dina am yenn ñuy euh, yëngu ci wàllub yoon ya nga xamante ne dañuy ragg seen ndigal njiit di Souleymane Teliko euh, Madiambal Diagne ñooñu la ko daal di xamle ñu teewlu ko ak El Hadj waaw décision bi bettuma bettul kenn ka nga xamee ne que ñu doon suivre dossier bi euh, depuis talaata Euh, waa tribunal muy avocat di magistrat di personnel judiciaire di journaliste yi nga xam ne ñu doon topp mu yëgoon nañ ko ndax xamoon nañ ne bi chambre bi délibéré euh, information amoon nañ ko euh, nee nañu ko magistrat yi kat bëgguñu président union des magistrats perte dara jaam ci diggante diggante mag ma jàmbal kon nag kon di condamnation bi nekkul la nga xam ne ni mën naa sukkandiku ci yoon sukkandiku ci droit bu procédure bi ñëpp xam nañ ni baaxul procédure bi xam nañ ni que ba ñu toogee tribunal preuve la ma waxoon indi na ay firnde yu xam ne kenn mënu ko nattable ba ki nga xam ne moo porte plainte sax nangu nañ devant le tribunal que li ma indi mooy preuve yi nga xam ne mooy li xew kon nag bu ñu ma condamné kon lan moo ko waral waaye du mbirum droit du mbirum justice loolu nag bu amee ñun citoyen la ñu daji topp yoon ba mu jeex dinañ def appel immédiatement samay avocat sant naa leen loolu waxoon naa leen ko depuis avant-hier ne leen que bu décision bi tombé na ngeen def appel immédiatement dinañ ko def am naa yaakaar ni que dëgg mooy mujj dinañu àtte ci yoon euh, citoyen nag sénégalais la euh, justice ñëpp la fi nekkal ñëpp ñoo war a yem ci euh, ci kanam yoon moo tax bi nga xam ne kii nga xam ne moom mooy Souleymane Téliko demoon na ci yoon yoon def na li mu def dinaa ko topp ba mu jeex waaye man it am na procédure ba nga xam ne dugal naa ko mooy demandé naa ministre de la justice mu autorisé ma ma porté ko plainte daf ma naa yaakaar daa am autorisation boobu te bu ma ko amee yaa am naa yaakaar aussi yoon dina doxal nag ñun ay sénégalais lañu euh, ñu euh, toog lu di yoon euh, am naa yaakaar nag ni ñi nga xam ne ñoo fi nekk xam xam xam ne xàmmee ràññee xam nañ ni que lii teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg. ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci njàng beeg njàngale bi foofee syndicat autonome bu enseignement supérieur daal dina dakkal lépp lu jëm ci seen wàllu yëngu ci université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ba jëmi jamono ñoom nag lu ñu daal di teg ci table yi mooy ko ne nag foofee amut kaaraange te saa su ne ndongo yi dañuy dal seen kaw ba tax rek ñu daal di tiit ci seen wàllu ëllëg moo waral ñu daal di jël boobee dogal dañuy teewlu kile di Fatou sekk yu moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu revendication ca SAES ñu teewlu ko ak El Malick jël euh, dañu waxoon sax convoqué assemblée générale parce que assemblée générale moo am sañ-sañ arrêté cours yi mais comme ñu ngi woon ci situation bu jàmp ñun bureau bi nga xam ne ñooy représenté enseignants chercheurs yi au niveau du SAES ñoo décidé effectivement pour xool parce que dañu jànka jànkonteel ak ay gaañu gaañu ay saga ay oto yu nu ay biens yu ñu toj université yoo xam ne suñu collègues yi euh, ñoo ñoo ñoom ñoo subir euh, perte yooyu donc ñu ne xaaral ñu suspendre cours yi ba xam effectivement euh, situation bi nu muy demee parce que mënuñu continuer tamit di exposer suñu vie collègues yi nii Euh, ci Mali Fofana daal loolu moo tax ñu jël décision bi. du ci meneen mbir bokk na ci ngir rek daal di mën a am kayitu juddu foofee ca njaaram rawatina ndongo yi nga xamante ne dañoo nekk ci classe ou l'examen euh, loolu nag moom mooy seen i jafe-jafe ba tax rek seen ëllëg fi mu ne nii moo ngi ci xottal gerte loolu itam bokk na ci méttital ak xor gi nga xamante ne ñoo ngi kaa def xale yi loole lañu ñu daal di nemmeeku ci ONG Terre Suisse moom moo ko daal di nemmeeku Xaadim Jëng nag daal na sàkku daal di taxawal ay centre ya nga xamante ne dañ fay xel di daloo ndaw yooyee daal nekk ci njàqare ñu teewlu ko Adama Ndiaye. Joining Forces mu ëmb juróom benn organisation yu kuréel yi gën a mag yi liggéey si wàll xale muy ñun Terre des Hommes Suisses di World Vision di Child Fund di SOS di Plan ak euh, SOS Direct Enfant ñun kuréel yooyu ñu dajaloo ñoo européenne financé ñu benn projet pour ñu xeex ak ak yëleefu xale rawatina aar leen ci wàllu Covid bi ak après Covid waaw déglu nañ waxtaan yi am na solo mais ñaari mbir laa déglu yoo xam ni en tout cas yuuxu xol la benn bi mooy xale yi ñàkk këyit mbir mi ëpp na loxo jéggi na doy wa te yaakaar naa boobu nag jot ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom nañu jox wàllu yoon suñu réew mi rawatina fii ci dëkk ñu jàppale si askan waxutuma sa jàppale mais surtout xale yi ndax balaa ngaa xam métti bi rek nga am xale boo xam ne war naa def examen wala mu am soxla këyit mu jàmm mu taxaw mu leer na leen ne kii tey addinaam daanaka yàqu na ndax amul këyit boobu kon foofu yaakaar naa ne am na jéego yu nu war a gën a def gën a waxtaanaat ak ñi nga xam ni ñooy yor wàllu yoon yàlla doxale na réew mi pour que ñu mën a jàppale ñu si wàllu xale yi ñaareel bi mooy gis nañ ni njaareel bëri na ay daare bëri na xale yoo xam ni dañuy am ay mettital xale xam ni dañuy nekk si ay jafe-jafe mais li ñu seetlu mooy xale yooyu dañuy soxla bu loolu amee nga am foo leen mën a jël làq leen ba pare am benn toppatoo bu gaaw boo leen war a mën loolu amul ñu koy wax centre d'accueil et de prise en charge d'urgence ñu foog ni loolu tamit doon na loo xam ni lu jàmp xam ni ñun ñëpp war nañ moom aussi mu dugal si loxom mën a xam ne tey boo bu wala xale boo xam ne na lu ko dal wala leneen ak leneen ñu mën ko faa mën a làq moom la soxla si àddu ci beneen mbir bokk na ci ca ay gune yu nekk foofee ca njaareem mbiru pour rougeole ak itam li di poliomyélite di xeetu feebar ya nga xamante ne day lompoñ loo gune yi loolee nag ña nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllub wërgu yaram ñoo nga daal di yëglu fexe itam ñu daal di ñàkk gune yi tuuti sëy ñàkk yi nga xam ni dañ koy faral di defal xale yi ngir aar leen ci ay jàngoro yu bëri jëm ci li nga xam ni moom la ñuy wax PV muy programme élargi de vaccination gis nañ ni ñu bëri toppatuñ ko ni mu waree loolu nag ba fi jàngoroy coronavirus duggee ba léegi bërëbu fajukaay yi ñu bëri dematuñu fa respecté tuñu li nga xam ni moom mooy rendez-vous médicaux yi te ñi nga xam ni nag ñoom ñooy tuut tànk yi fi mu nekk nii dafa mel ni ñoom ñoo ci gën a loru ndax kat am na jàngoro yu bëri yoo xam ni mën na leen a alawte ko ndax ñàkk yiñ leen war a ñàkk ñàkk ñu leen ko loolu sax moo waral ñu nemmeeku ci mois de janvier bee ñu génn ay kaawu poliomyélite maanaam feebaru lompoñ bi dal xale yi fii ci biir Touba loolu moo taxoon ba kilifa yi nekk ci wàllu wér yaram ubbi ab campagne ngir ñàkk xale yi waaye liñ ci doon séentu yëpp amuñ ko ci woon ndax téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ak juróom ñoo jotoon a ñàkku médecin chef district sanitaire bu Touba docteur ndey Maguette Diop di ko fësal di wax ni loolu sax moom moo waral beneen campagne ci ñetti fan tàmbali ko ci alxemes ji ngir xale yépp mën a ñàkku ndax kat nee na ba léegi ñi ngi woy di am ay kaw polio fii ci biir Touba donte sax feebar boobu mu ngi gën di law taxul ñi nga xam ne ñoom ñooy parent yi yóbbu seen doom yi ñàkk leen ñenn ñi ñi ngi woy di bañ ba tey loolu nag jaaxal lool kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu wér gi yaram te bu weesoo polio boobu ñi nekk ci wàllu wér yaram bi ñu xamal ni am na beneen jàngoro bu feeñ ci xale yi ñu koy wax rougeole muy feebaru ŋas te loolu yépp li koy indi rek moom mooy ñàkk a topp li nga xam ni moom mooy ñàkk yi ñuy defal xale yi waa kër docteur nag di wax ni ñàkk yi dong moom moo leen ci mën a aar tuuti say mbàkkee su defem tuuti sëy noonee la ñuy duggee ci tolluwaayu mbas mi diggante démb ak tey ñaari nit ñàkk ci seen bakkan bees lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett daal di ko amee bees itam ci loolu itam daal di nañu gis ne lu toll ci ñeent fukk ak ñaar fi mu ne nii kenn ci ñoom xamul fan la ko jëlee ñeent fukki ak juróom yi nag ñoo ngi leen daal di nemmee ko diggante Ndakaaru ak uh, Wokam jàpp Matam. ak it euh, foofee ca Mbour lu toll itam ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ci ay wàllub way tawat ñoo leen di saytu foofe ca loxoy kër docteur. 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 ñàkk kaaraange bi waa CES daal di àddu foofee ca UCAD la ñuy daal di waxtaanee lu jëm ci wàllu politique ki njiitu réew mi ak it euh, dellu seek euh, Laurent Gbagbo foofee ca Côte d'Ivoire ban jàngat ci wàllu Afrique doxalin ci wàllu politique ak njiitu réew yi fi daal di nekk ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum allo waaw. Euh, baa yaa maa ngi sant alhamdulilah. waaw xam naa ñu ngi lay ziare baax di ziare jeex. ziare monsieur Maba ba ca a ko ñaan jàmm ak salaam su loolu moom bu fekkente ne am na histoire ba ñuy gerewoo kam ak a mars ak def yëpp rek sécurité du fa waaye bu fekkente ne ñu ngi jàng normal amuñu benn problème doo fa gis benn lu lu xeetam lu ñàkk sécurité parce que xale yi nee fa nekk ñoomu nee fa nekk xamante nañ li war Cheikh Omar Anne tey mu ñëw seere situation bi seet université yëpp ñu ngi boy fenn fu ci nekk mu dem wax ak ñoom lan moo tax université boy bu leen amee léegi xaalis mu fay leen bu leen lu war a defe wala lu mu fa war indi jàmm moo fay indi sécurité mais du leneen université moom toujours fekkee ñu ngi jàng normal di xamante ne kenn sañu faa dugg defa dee nag wàllu Côte d'Ivoire rek Galora Gbagbo boo dee ah loolu sa normal ñoom ñoo ñoomu nee na rayante woon nañ ci seen biir kii toog na def na même bu yàlla ne loi parce que ñaari mandat la waroon dend moom ñetti mandat kon kay bu fekkente ne loi war naa ñëwaat mu yebal oto mu jëli ko ñu teertu loolu moom amul benn problème parce que gannaaw ay jàmm parce que mbir bi bu fekkente ne toog nga jim leen dafa jàmm ak salaam boo war a sa dernier mandat nga def war nga war a jubóowoo ak ñi nga génne woon ak ñi nga wax loolu ñëpp ñëpp del siyaat toog jàmm ak salaam ndax ñëpp doomi réew mi lañ ku ci nekk mën ngaa defar réew mi waaye daal li ñu war a def daal ku jeexal nga dem toogi loraal bag boobu ñu mu bañ a duggaat ci politique bañ a duggaat ci leen jàpp jaabir parce que toog ba ñu seet keneen ku bees waaye li baaxul daal mooy topp nguur di ko ñëdd ba mu jeex jeexal ko bëggaat wala leneen ak leneen loolu daal mooy nekk loo xam ne toujours day indi nit problème lépp lu na ko muurloo waaye bu fekkee liggéey nga dara ba denc dugg ci ay jafe bu doo ko muurloo yaa indi sa bopp problème rek ñooñu daal moom dafa neex boo ko toppee doo ko bàyyi te du la amal benn njëriñ nag ñu topp sa gannaaw ñoo lay di la ba wax naan la bu fi jóge bu fi jóge ba defal indi la problème boo demee ci kaso ba kenn loolu rek kon ku ci nekk na nga xalaat ci loolu waaye ca nga jéem a indi jàmm ak salaam ca sam réew lépp luy indi ay ka teg ko ci suuf ay amul njariñ te dereti dereti bopp dong la may mbagum borom ku ko kere kenn du la ci ëppale kon na nit ñi maasee sant yàlla ca góorgóorlu rek parce que day liggéey lu waaye am nga jël ko lu waaye mënta am nga bañ koo jël bañ a xiiroo ngaayoo merci beaucoup jërëjëf Mamor Dia ca Padoa ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam Birama. waaw. maa ngi lay nuyu la siyaare waaye di la nuyu di di kontaan ci ñi nga bokk liggéey bi di la nuyu. jërëjëf Moustapha. waaw li ma njëkk a wax mooy affaire xale yi Sénégal tiit jot na quoi parce que xale yi bu ñu toogee ba Sénégal xale yi yàq xale na loolu doo ko dégg xale yi yàq xale yi. te man li ma ci jaaxal ba jaaxal an tant nga nekk ko université war a am xalaat bu rafet ak kii yàq waaye nag lu jëriñ jaaga te état ñoo njàkk ak ak ak ak assemblée parce que lii dañ ko war a crime dañ ko war a def muy crime nga xam ne kuñ ci jàpp ñëw yàq say say say carence judiciaire yow dara dootoo ko mën a amati jàng dootoo ko def dañ la yàq ci école yi mais il faut parce que gàtt geen gàtt geen a koy fay xale yi li ñu nekkee nii actuellement kenn xamul ñaata rat toujours suñ ko xëyee defar rek bu ngoonee ñu yàq suñu xëyee tabax bu ngoonee ñu daaneel ko loolu ba kañ ba kañ loolu nan la ci réew mën a avancé tey itam comme li mu wax dëgg la ànd naa ci moom xale yi li ñu jógtee il faut ñu wax ci il faut wax ci ñi leen di jàppale ñoom ñëpp il faut ñu jàpp wax ci ñu arrêté seen affaire caaxaan yi yàq yàq jëmewul ci réew fenn yàq mënul tax nga jëm fe nga àgg fenn waaw li ñu war a def mooy carrément sanction yoo xam ne yi kenn dootu ko ñeme defati yu mel nii ku ko gis ku nekk nañ la teg loo xam ne lii doo kenn dootu ko ñeme defati affaire yi caaxaan yooyu mooy lan nañu am fulla ak fayda fulla ak fayda mooy jaay da xaar nañu am fulla ak fayda ci xale yi wax ak ñoom ñu arrêté li ñuy def parce que mënuñu daal di tabax réew mi sama waaye bu ñu xëyee tabax ba ngoonee ñu daan daane la ñuy tabax loolu mënul nekk na seen parents wax ak ñoom wax ñu jubbanti leen président li mu wax dëgg la cent pour cent il faut ñu wax ak ñoom nag bu caaxaan muy dëgg des doy na doy na doy na loolu la jërëjëf kontaan na affaire Côte d'Ivoire moom jàmm ak salaam jàmm ci la lépp xaj waaw naa xay jàmm na toog na cell bàyyi ba kii mandaam jeex bu bëggee ranguwaat mu ranguwaat loolu mooy mooy li nga xam ne lii mooy dëgg tey yoon waaw en tout cas état assemblée daal ne war nañoo jóg ci lii si war a wax xale yi état civil léegi ñooñu war a wax xale waxuñu dara dañu ne cell waxuñu. jërëjëf Moustapha woote foofee ca États-Unis ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo asalaamaaleykum Birame. waaleykum salaam man la Souleymane di la wooye Paris na ngeen def. Ah, sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah. Hmm. waaw bëggoon wax ci affaire étudiants yi université Dakar ak sax université du Sénégal de manière hmm. générale. Hmm. xam nga étudiants yi leen dal malheureusement bon lu ñuy def gaa moom yenn yi du yoon quoi donc euh, nekk di politique biir université euh, di xeex ci biir kooku kooku ça se justifie pas du yoon voilà mais nag étudiants yi leen dal Sénégal dafa métti surtout les jeunes leur avenir a été sacrifié maanaam munoo am bac dégg nga say parents yaakaar ci yow nga war dem université pour construire sa avenir nga toog deux ans trois ans kenn du la orienté mais wala ñu yóbbu la si université virtuelle du Sénégal ba pare duñu la jox sax ordinateur pour nga mën connecté wu si réseau bi pour jàng normalement donc l' avenir de ces jeunes a été sacrifié doomu aadama nag bu la wóoree nga toog nga gis sa avenir mi ngi déroulé sa kanam mu rëcc la mais kooku il faut s'attendre à ce qu'il ait des comportements yi nga xam ni kenn du ko mën comprendre loolu donc la man loolu laa ko mën a expliquer nga boo dégloo émission euh, objection bi Baye Omar defoon keroog ak Mary Teuw Niane hmm. c'était le 30 mai ku déglu émission boobu vers la fin Baye Omar mi ngi doon interview Mary ancien ministre de l' enseignement supérieur sur l' de l' de de supérieur mais seeram day daw parce que Mary Teuw Niane bu mu ñëwee il a dirigé l' euh, enseignement supérieur pendant six ans amoon ay ambition pour cette ces universités du Sénégal nekkoon di liggéey liggéey il avait essayé il avait mis quand même des choses mais ñu teggi ko teg ko fële teg fa ki nga xam ni bu mu nekkee ay luuba dong la fa nekkee woon waa ji il est mais bu déggee Mauritanie mënoo waxee keroog liggéey bu fa defoon waa ji ñëw yàq na lépp donc tu vois yooyu moo leen découragé étudiants yi je pense fu mu nee nii dañuy gis seen avenir mi ngi circulé seen kanam te mëntuñ ci dara loolu moo tax ñu am comportement yu mel nii loolu laa ko expliqué maintenant pour le cas de Gbagbo. Mhm. Afrique si politique bi ñuy def ngeen baal ma si kàddu dafa salté en Afrique la politique au lieu d'être adversaire par rapport tu deviens un ennemi loolu mooy problème bi bu ñu la mënul rey da nga lay fexeel di la boqatal loolu mooy problème bi malheureusement en Afrique dégg kuy def politique nit ki sa adversaire la c'est pas ton ennemi bu ñu la rey dañuy def tout pour toroxal la tëj la kaso moo xam malheureusement dans tous les pays africains dégg nga te lii dafa dafa rafetul quoi. Mm-hmm. voilà jërëjëf jërëjëf Souleymane woote ca Paris ñu daal di jël keneen biti réew 33 841 22 33 ci biir réew mi 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. monsieur Birima. Chérif. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñëpp a ngi lay fay. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa allah azza wa mu aar senegal aar aar adduna bi yëpp. di Sébrima. maa ngi vraiment jëfal sud quoi ñun hmm. dañu bëgg ni sud na am télévision parce que yéen vous êtes des journalistes man je ne jette pas des fleurs ku ma xam-xam na ma lu may wax rek sama biir xol laa ko tibbee c'est ça émane directement du fond de mon cœur da ngeen war am télévision parce que gis nga journalisme dafa war a doon miroir dans un peuple pour un peuple plutôt you know parce que yéen li ngeen di wax moom mooy yee doomi aadama yi nga xam ne ki dañuy dem ci urne pour changer seen qualité de vie mais bu fekkee ne dafa am ay journalistes alimentaires les quatre-vingts pour cent des journalistes aujourd'hui au Sénégal ils sont que alimentaires dû à quoi parce que noonu la Macky Sall def pour corrompre leen jël leen dugal leen ci nguur gi ñeneen ñi mu leen di jox sous le table et cetera et cetera c'est pourquoi suñu démocratie bi c'est biaisé you know mais voilà man li ma bëgg a wax mooy Souleymane wax na ko sax quoi parce que on a récolté que ce qu'on a parce que gis nga réew wan say doomu réew xale yi ak jigéen ñi ma wan na sa ëllëgu réew loolu moo xew indiscipline bi ak anarchie bi mais commencé wul ci Macky Sall dafa gën ak accentuer ci moom rek te moom bi mu ñëwee amul benn structure boo xam ne ki Macky Sall indi na ko pour génne fi anarchie wala indiscipline amul corruption sur corruption journaliste yi sëriñ si bu waxee sëriñ si mer mu ne naa leen tabaxal ay résidence bu waxee eh, eh, professeurs yi mer mu ne naa leen yokkal bu waxee étudiants yi mer mu ne naa leen jox eh, naa leen yokkal li ñuy añee restaurant et cetera et cetera Idrissa Seck corrompu corruption jox ko ne léegi am na quatre vingt cinq pour cent. jërëjëf c'est une structure bu muy structuré Sénégal. jërëjëf Chérif woote ca États-Unis ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaane bokk na ci njàng beeg njàngale mu ñu daal di dakkal foofee ca UCAD waa CES ñoo ci jël dogal ne foofee amut kaaraange ndaxte saa sune ne ndongo dañ leen di xupp ak ay dal seen kaw beneen bi bokk na ci euh, dellu seek Laurent Gbagbo foofee ca Côte d'Ivoire ban jàngat ci wàllub doxalinu politique ak yit ci àdd euh, ci Afrique lu jëm ci wàllu wàllub Euh, taxawaayu njiitu réew mi foofu itam ci fànn boobu boobule rawatina lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi ci ban taxawaay ban jàngat 88 lay doon 628 98 98. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci wax sa xalaat ak xibaar yi fàttali leen li ci gënoon fës bokk na ci rek dellu seeg kii di Laurent Gbagbo foofee ca Côte d'Ivoire. ak nuñ koy daal di xaar jàngat liñ ciy def di ngeen ci ànd itam ak Sud FM ànd ceeg Baye Omar Gueye ak invité am di Cheikh njaay Ndiaye ngir rek ñu gën cee ñëw nu mu gën a yaatoo euh, ngeen bañ a toxal antenne bi ci kanam tuuti lay doon dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo loolu itam boole nañ ci yeneen xeetu xibaar bokk na ci njàng beeg njàngale bi ak itam feebar polio mi it maanaam feebar bi nga xamante ne day lompañ loo gune yi foofee ca njaareem ci lu jëm ci wàllub Touba euh, ndi ñëw nañ ci jeexale ko ci wàllub wax sa xalaat boobee ci kanam tuuti bu 22 bu juróom-benn waxtu jotee euh, kii euh, dina ñëwaat itam ci lu jëm ci wàllu euh, xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ngeen ànd ceeg Marie Rosalie Ndiaye ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak seen programme seen rajo. Ceci bees yu bees kalpe bu fees sa xaalis daal ki nga koy dénk daa war a doon koo wóolu léppam daa war a ànd ak kaaraange bu noppale mënee fu ne te ànd ak sutura seen kalpe orange moo ne nag ak ay wàññi yu xéwale ci wàllum yónnee xaalis nag wàññi nañu fere yi ba quatre-vingt pour cent est-ce que maanaam léegi ak cinq mille francs CFA fa nga daan fay trois cent cinquante francs juróomi dërëm dong ngay fay ngir yónnee fay fukki dërëm kese ngir retiré li a